xanaa soppa nga nga soppa nga soppa nga lañu tok mu juga ñew fi ko akapel maki ti asafle safle oh dumna ay dumna way ah yalla ya, ma jégal way la bok déedéet bokul, ah, ñun son ci Sonko. jomay mom la ñuy noy waaw waaw. yaay ma nga la fekk fi depp soba ba mu melni yaay fi ngi fii ak APES. waaw waaw Sonko moko jaral. ak jomay Fay. waaw waaw. da japp nga ni sen premier jour de campagne bi amna doole. amna doole bu baax sa même démb ci goudi sa amna doole. waaw waaw parce que unité dis la dëkk. di bi. man may tegu Mariama Jata. wante ñu may woy maire Mariama jaata libre bis ni ke tay la am indépendant nous sommes libres le peuple sénégal est libre parce que dono amone président dictateur président bo xamante dañ don toroxal tek ñu buumu jam di ñu ray di ñu tej Macky Sall yal nako suñu ak dal yàlla nako suñu ak dal na dé na dé na dé vive le Sénégal wuyu eh. man sama frère mi rëbës génnagul Baye Fall Paradise sama frère mi rëbës génnagul ñoo bokk ndey ak baay. Baye Fall Paradise ñëpp xam nañ ko si Sonko ñoo bokk ndey ak baay mi rëbës génnagul yaa ngi dégg li ma mais moom na ma xool li mu moom li mu waroon def ak li ñeneen ñi waroon def lépp man dinaa ko def waaw. te inshallah allah Fall bu réccu li nga doon def yow bu réccu li nga doon def li nga doon bu ci réccu dara. la motax mom moom libéré wuñ ko parce que libéré nañ ay détenu politique dañ ko ragal rek mom xam nañ ko ñom dañ ko ragal Baye Fall la mom mom amul dalu ginaaw de xam ni élection inshallah incha allah Bassirou Diomaye moy mooy gagné élection inshallah japp allah. nga lool non jarul ñom ñu tricher. waaw ñun fiñu fiñu nek da leer. mu nek premier jour bi ah mu mel ka yeena ngi fi téré ak pass mu fess fi del waaw li de kontaan la si ñun waye defet la manam ci ñinga xamanteni ñoy suñu sunu ndax Macky Sall suñu non la. mais li Macky Sall li tax mu nek sunu non manam daf ñoo tek fitna depuis 2017 ba léegi may ñu jamm di ñu di ñu gakkal di gàkkal sunu dar, te ñun ñoko gëna gën a set der li xoolal lii ko mën tere ak bi du yombul. amul ku amul benen leader bu mën li kudul Ousmane Sonko Macky Sall sax bu woote won du fess mais japp ngeen yeen ñi fi taxaw am ngeen ay carte électeur yo xam tay di ngeen dem batay su su sunuy rak sunuy mag sunuy wayjur sunuy maam sax dañuy voté ji incha allah incha allah sëñ bi ah. Ah, taxawaay bi de mooy ñëw fii rek ngir jomaay ak président Seydina président président Ousmane Sonko pour lan élection yi mën a premier tour ndax ñun depuis 2004 la 2014 la top topp Ousmane Sonko ba léegi ni incha allah rabbi yóbbu ko pale moo des te dinañ ko yóbbu moog jomaay moog li gars yi di wax ku wooteel benn am ñaar boo ootale Sonko euh, Diomaye dangay am Sonko ñoom ñaar ñoom ngay am ñun nag Sonko rek ba lii moom lañ ci teg suñu bakkan la ñuy teg ci Sonko ku ko laal laal ñu ñun so Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye jeex na. sëñ bi. Sonko kese soxna si na ko maa ngi lay sant la gërëm bu baax ñun Sonko moo ñu taal moo ñu ñëw fii quoi ñun dañoo jugee Kër Massar ñëw fii Macky Sall dañoo teg lu metti bor la bis dina fay bis. billahi wallahi taala le 24 mars incha allah Macky Sall duñ